بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده mbokki jullit yi ñu ngi am mbégte lool ñëwaat ak yéen ci suñu jataayu koor bi di àttey koor waxtaane lenn lu jëm ci koor gi ci àtte yi te yitteel ab jullit mu jaadu mu xam ko ba ak kooram gën a yëwén gën a méngoo ak njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu def ko ca anam ga gën ba dajee ceeg eh, eh, fayu borom bi subhanahu wa ak nangoom jaamu yàlla gu mag googu dañuy fàttali rek ne koor dafa nekk ci dafa bokk ci keno yi ak ponk yi nga xam ne ñoon ŋànk diine lislaam lu ci sooxe rek daanaka day sooxel diine kon jaadu na war na yell na ci jullit bi mu xëntewoo lool lépp loo xam ne lii mooy yéwénal ak kooram waxtaane woon nañ fi ñi nga xam ne am nañ ngàntal ñàkk koo ñàkk woor ci weer wi mooy kii tukki aji tukki ji wala ki nga xam ne dafa amee tawat jàngoro ju ko tere woor ak jigéen gi nga xam ne dafa gis baax wala dafa amee euh, deret wasin wala ki nga xam ne euh, wala koo xam ne ni sax xëy na dafa juum wala euh, def loo xam ne lii mën naa yàq ak kooram kooka nan lay def ginnaaw weer wi ki nga xam ne am na ngàntal sharia ngàntal sharia lu ko teree woor walla ki nga xam ne jëf na lu ñu tere ci koor ba bi kooram googu yàq doonte day dañ lislaam da koy wax ne ko koor googu danga koy yeggali danga nga koy yeggali waaye day war ci moom mu fay ndax ki nga xam ne dafa lekk wala mu naan ci bëccëg weeru koor juum kooku bu dee ci ngiru Maalik day mottali kooram waaye day fay beneen bis ginnaaw koor gi bu fekkente nag dafa lekk tey ko wala mu naan tey ko day fay bis bi waaye day kafaara kafaara nag mooy lan mooy day leel juróom benn fukki miskin walla mu goreel ab jaam boo xam ne nii ab jullit la wala mu woor ñaari weer yooye mooy xool bu ko ca neex kon daal ki nga xam ne am na ngantal ñàkk woor day fay koor googu ginnaaw weer wi ki nga xam ne nag def na lu ñuy tere ma euh, fay ma nag caa fekk waaye mën naa fay ba pare kafaara war ko ci kafaara nag mooy comme liñ leen wax nii kon bu weer wi jàllee ñooñu nga xam ne amoon nañ ngànt bu seen ngànt jeexee dañ daa di nañ daal di gaaw fay seen bor boobu ndax bor dañ koy gaaw fay sopp nañ lool nit ki bu amee bor ci koor gi bu koor gi jàllee na gaaw fay ko waaye bu fekkente ne ay fan yu limu la nag sopp nañ ci lool mu tegale bis yooyu donte nag gaaw a fay ga nekkul lu war waaye toftale bis yi tamit nekkul lu war waaye su ko defee mooy li gën su ko defee mooy li gën bu dee kafaara nag ki nga xam ne dafa war a fay kafaara kafaara yi comme niñ leen ko waxee ñetti mbir la bu ko ci neex na def waaye ba ca gën da ci ngiru Malik mooy mu leel juróom-benn fukki miskin bu ko neexee nag mu woor ñaari weer wala mu gëreel ab loolu nag àttale boo xam ne ni xëy na. Euh, yombatul a gis ci suñu jamono ji waaye daal li ci moom mooy na leel juróom benn fukki miskin léegi nag ki nga xam ne nag waroon naa fay mu am ngànt wala ak sàggante dab ko ba weeru koor ñëwaat ba weeru koor ñëwaat te fayul bor boobu kooku nan lay def kooku day bu koor gi ñëwee day woor weer wii weer wii nga xam ne moo teru ci lañ nekk nii mu woor ko ba mu jeex bu weesoo nag mu daal di fay mu daal di fay koor léegi dafa am ñaari mbir kooku bu fekkente ne li ko teree woon a woor ba koor gi ñëwaat bu dee ngant la ngantal charia la moo xam dafa amoon na ngant moo xam dafa feebaroon tamit ci diggante bi wala yeneen loo xam ne ni ngant la lu charia mën a nangu kooku moom day woor woor weeram yi teru nii bu paree mu fay la nga xam ne mu la amee woon waaye bu fekkee ne amul benn ngànt xëy na ak sàggante dong la ci moom bu fekkee ne day woor weer wi day leel day leel leel miskin bis nekk day leel miskin su weer jàllee nag ak ak kooram bu weer mu doog a fay euh, la nga xam ne moom la moo la amoon ci ay bor kon daal ki nga xamee ne am na ngànt ba fay war ko ca mu dog kooram ba fay ba fay war ko ca wala kafaara sopp nañ ci moom bu koor gi jàllee mu gaawantu fay bor boobu waaye bu dee ay fan yu bari la mu toftale fan yooyu noonu donte nag nekkul lu war euh, kon ci tënk lu lu lu gàtt gàtt rek loolu rek lañ ne woon nañ ko waxtaanee waaye di dellu di jaajëfal ñëpp gis nañ euh, yittewoo gi ak commentaire yëpp ñu ngi nuyu ñëpp di leen jaajëfal bu baax am na nag ko fi laajoon mu ne ndax euh, nit ki nekk ci yenn liggéey yi ba liggéey boobu xëy na bu fekkee ne dan na ko boolee koor bu fekkee ne dafa da koo boolee koor gi koor gi mën naa andi gàllankoor ci liggéey boobu mu ne lu mel ne ñi nga xam ne dañuy def tàggat yaram wala ab ñi ñi mel na football wala yu mel noonu kooku daal dañ koy wax ne ko football ci jëmmi boppam bu fekkente ne nekkul loo xam ne nii ay alal lañ cay teg wala ak kart la te yàqalul nit ki mu def ak ak warteefam yàqalu ko julli yàqalu ko leneen waaye tamit àndut ak loo xam ne nii lu lu xaraam lay doon lu mel ne wuññi awra yi nit ki moo xam góor la moo xam jigéen la wala jaxasoo maanaam andiwul ak jaxasoo ci góor ak jigéen te yooyu yëpp dafa xaram bu fekkee daal loolu lépp mucc na ca moom tàggat yaram boobu dagan na def ko dagan na seetaan ko dagan na doonte nag euh, daanaka ak foola rek loolu nag nga xam ne ak foola nag jëkkul jaaduwul nit ki di dagg kooram di bàyyi jaamu yàlla gu mel ne koor ngir lu mel noonu te yaakaar naa ne loolu warul mën a nekk ngànt ndax gis nañ fi ñu bari ñoo xam ne ni ñu ngi ñu ngi boole seen yooyu noonu ak koor gi te yaakaar naa yàqalu leen benn yàqalu leen dara kon daal euh, loolu lañ koy wax te am na liggéey gën a metti fuuf euh, tàggat yaram te nit ñaa koy def di ko booleeg seenu koor kon loolu warul nekk ngant daal ci nit ki yàq ak kooram loolu daal lañ ne woon dañ ko ci eh, indi ci laaj boobu ñu ngi jégluwaat ñëpp di yemale jotaay bi fii ba ëllëg ak jàmm incha allah aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service du Saint-Coran.